Euh, ab tënk rek ci ay xibaar mën nañ ñi la nga xam ne rek moom moo sa gën a fees jamono bi ñu toll nii yow mi ñuy teewlu di la ñaan nga abonné bu fekkente ne gan nga ci chaîne te nga partage vidéo yi seen commentaire ñu ngi koy xaar gannaaw bu ñu dellu si rek ci lii nga xam ne rek moom moo gën a daal di nekk actualité ci réew mi di Sénégal gannaaw doomi aadama yi nga xam ne rek ña ngay ñàkk seen bakkan mën nañ ñe nag te la ko waral di benn point bu nga xam ne rek moom moo daal di jur coow li ni mel ba tax ni kiy démb ba tey ay bakkan di mën nañ ne ni ki tey sax nemmeekuwaat nañ ay yëngu-yëngal wante kat ñi nga xam ne rek ñoom ñoo seeni banque seeni loxo rawatina foofule ca diwaanu Louga mbir mi ni mel nag a li nga xam ne rek moo di gàllu guuse ci wàllum njàng ak njàngale doore koog nag ñi nga xam ne rek ñoom ñoo di groupe Walf Fadjri bi nga xam ne daal di nañ leen di autoriser rek gannaaw niki tey ci vingt heures bi nga xam ne rek jot nañoo gis kii di Moussa Bocar Thiam ministre de communication moom mi nag daal di jot a xamle ne kat dinañ daal di delloowaat ñii di Walf Fadjri rek seen licence ci mbir mi ni nag tax ñi di waa wal fajri rek daal di ànd ak kontante ku mat sëkk wante kat taxul ñu daal di fàtte li nga xam ne moom moo taxoon wala bokk li waral mbir mi tamuy euh, kii di président Sall amal ay annulation ci élection yi bu fekkente ne nag dañ leen a delloowaat li nga xam ne rek moom moo di seen signal du tax nag ñu daal di dellu gannaaw benn yoon ndaxte kat la ñuy xeex amagul lenn loo xam ne rek sa yees la luy wane que ne kat war nañoo daal di teggi seen tànk ci xeex bi nga xam ne rek danañ daal di continuer ba tey wala bokk danañ deltuwaat gannaaw di question bi nga xam ne rek moom mooy posé wu gannaaw ay bakkan yoo xam ne ña ngay rot booba ba tey